que depuis un moment aussi on a euh, remarqué euh, que ni immigration clandestine bi ça a de plus belle donc euh, jeunes yi ñu ngi dem c' est vrai que aussi jamono yi Abdoulaye Wade nekkoon nga fa je le rappelle nekkoon nga UJTL donc nekkoon nga aussi directeur cabinet je pense de Khoureychi Met voilà donc ah, diggante boobu aussi c' est vrai que jeunes yi ñu ngi doon dem mais actuellement avec ce régime en donc gis nañu affaire bi ça a de plus belle donc est-ce que aussi ñu dut baaram ci problème mu chomage bi sévir sévir temps Sénégal. xam nga tey kenn mënul accuser le président de la République ci ndaw ñi di dem di jëli gaal mais c'est un message que je lance à la jeunesse sénégalaise ndaw ñoo xam ne samay rakk lañ samay jarbaat lañ ñeneen ñi féete ma mag Sénégal ñun ñoo ko war a liggéey su ñëpp dawee ku fi des ëllëg. ñi ngi wax mbirum pétrole ñi ngi wax mbirum gaz ñi ngi wax mbirum zircon la plupart de ces jeunes ce des cadres ñu ci bëri dañu jàng suñu yaay yi nag xam naa ñu bëri dinañ ma mere waaye ñoom ñooy teggi seen i tontine ñeneen ñi mu jaral leen ñu jaay seeni takkuwaay ngir jox ko seen i doom ñu dem pour euh, dem bitim réew tekki suñu borom rek a xam doomu aadama bi fi ngay nekk pour tekki que tu sois au Sénégal que tu sois à l'étranger yàlla rek a xam fan nga nar a nekk pour tekki ci loolu nag moo tax tey ndaw ñi lu bëri war nañ ko xam tu fois un cadre qui persoit peut-être deux cent ou deux cent cinquante mille francs le mois mais raxaskatu oto bi ci mbedd mi su amee fukki oto yu mag yu ci journée am na dix mille francs su amee cinq oto wala dix oto yu ndaw ci journée bi am na cinq mille francs soo ko boolee muy quinze mille kooku le mois ñaata lay percevoir au minimum il est à quatre cent quatre cent cinquante mille ça peut lui moom mu mën a dund moo tax maa ngi ñaanaat ndaw ñi nañu bàyyi yoonu mbëkk bi ndaxte bakkan amul prix bakkan amul prix ñenn ñu comme li ma wax nous sommes de la même génération ñeneen ñi suñuy rakk lañ mais suñuy dem bay lay nettali lenn li yenn jigéen ñi di accoucher ci ci gaal yi def ay fausse couche ñeneen ñi suñ gisee vague yi tiit ba tëb ci ndox bi xaru bakkan amul njëg nañu toog liggéey suñu réew Sénégal amul sous métier ku war a dem jàngi liggéey nekki maçon demal nga nekki mason ku war a nekk menuisier demal nga nekki menuisier. mais est-ce que aussi euh, mënuñu pointer du doigt un peu la pression une certaine pression sociale bi nga xam ne parents yi wala yenn dëkkandoo ñu koy exercer ci jeunes yooyu parce que gis nañ fi ay cas ñi nga xam ne am nañ liggéey am nañ ay boutique mais dañu ils ont préféré fermer boutique euh, pour mën a dem à l'extérieur jaare ko si yoonu mbëkk bi. waaw loolu laa wax loolu moo tax ma ne la xam nga c'est un choix personnel. Mhm. président de la république lépp lu mën mi ngi koy def mais l'État ne peut pas tout faire. depuis 2019 jàngoro gi fi amoon gis nañ ni que loolu dafa xew à travers le monde je te donne l'exemple des États-Unis mais le président Trump demandé wul woon ñu tabax benn mur ñu ngi barricadé wu bugguma lim yeneen ak yeneen dëkk yoo xamante ni ba ci Afrique gii am na ay dëkk yoo xamante ni jamono jii ñi ngi toog ngir mën a ñoom préserver li ñu jot a am waaye bañ a aussi nit ñi di fa dugg donc ñun nañu toog liggéey suñu réew mu neex nañu toog Sénégal lañu am mu naqadi nañu toog Sénégal lañ am moo tax maa ngi ñaanaat maa ngi def un nappel à la jeunesse sénégalaise di ñaan ndaw ñi nañu toog liggéey suñu réew nañu toog Sénégal ñoo ko bokk mu metti ñoo ko bokk ku dem wuti stage quelque part sottiwul dans le public par exemple déposé nga fonction publique jàllul mais vas-y dans le privé tu essayes ndànk-ndànk la rek fenn neexul dara yombul aussi donc euh, ñu fàttali euh, ñu ngi ak euh, Mouhamed Diallo président de la coalition Natangué Askan Wi yàgg nañ la xamee aussi ci côté social bon yàgg nañ la gis aussi ngay dugg si dëkk di jàppale ay nit donc est-ce que boobu léegi aussi c'est vrai que aussi ces activité ñu bëri ñu ngi naan peut-être yaa ngi koy def ci suuf doo doo si communiquer lu bëri donc lan moo waral loolu. waaw xam nga àdduna bi ku ci nekk rek da am une mission sur terre. Et cette mission, elle éphémère parce que tôt ou tard ci suuf lañ jëm donc temps bi ngay nekk ci kaw suuf nii di dundu yàlla may la nafsu as tuut bu la yàlla di dénk mu bëree sëg néew donc nga koy bokk ak doomu aadama yi raison pour la laquelle ëpp na fukki at nama ma na ma organiser wu seet yenn établissement yi xool ndaw ñoo xamante ni parce que bépp xale bu juddu. tu es pour être un champion que nag nga juddu dans les liens sacré du mariage que nga juddu hors mariage parce que gis nañ fi ay cas de viol tout enfant am na li ngay mérité mooy la dignité humaine beneen bi mooy gis nga Khalil am na am na ba léegi ay goran ah ci réew mi ñoo xamante ne du ñu tàllal seen loxo du ñu ñaan du ñu yalwaan te ñi ngi doyloo suñu borom subhanahu wa taala ñooñu ñoo ma jaral man personnellement au nom du chef de l'État ma ciblé quelques établissements jël ay jigéen dénk leen cette mission dem abonné ci quelques boulangeries dem gisanteeg yenn directeurs yi ñu jàppale ma wax ma seen effectif nan la ñu toll chaque fajar ñu jël xale yi yóbbu leen ay petit pain tartiner ci yi chocolat yi ñu def ci bër yi ñu def ci thon yi ñu def ci mayonnaise jëlaal jëlal leen aussi mooy seen seen gobelet yu ndaw yi defal leen ci du lait chaud ñu ñu defal leen du chocolat chaud pour que ces enfants suñu xëysee le matin mën na ndekki parce que xale yooyu noonu man personnellement samay doom gënuñu leen c'est des enfants yoo xamante ni demandé wuñ juddu ci yenn conditions yi ndaw ñooñu nag luñ leen liggéeyal yàlla lañ ko liggéeyal te loolu comme li ma jot wax de na ma koy def aussi ci ndigalu président Macky Sall te di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu kattanal ma ba may woy di ko def ba bés bu may fekk ji suñu borom c'est ça ma mission man seetatuma mbooloo parce que alhamdulilahi rabbi alamin yàlla dénk nañu ko seetatuma mobilisation parce que duy na stade def naa ay meeting woo naa mbooloo fu ne ci réew mi waaye nag am naa sañ-sañu xool ci ñu nekk ci jafe-jafe aw ma dara de waaye ñoo xamante ne tane naa leen as suut ma jël loolu bokk ko doomu aadama yi loolu comme li ma la wax ki ma ci njëkk dimbale mooy le président de la république mu aussi yeneen bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ciy dugal seen loxo may ñaax aussi képp kuy cadre waxuma rek cadre boo xam ni da ngay xëy ci état même soo nekkee dans le privé as tuut bu la yàlla dënk di ko bokk ak say dëkkandoo parce que am na ñu dul jàmbat te ñu ngi dund lu metti loolu du régime moo koy def loolu c'est pas un état l'état ne pas satisfaire tout le monde mm-hmm. mais kenn ku ci nekk yow yaay bay sa weewu tànk lu fi maam yi bàyyi woon ndaw ñi ñoo doon yeewu ci buntu kër yi surtout wi kenn yi xale yi di def set setal di bale mbedd yi loolu yëpp ñu ngi koy commencé bàyyi nañ ko delloo si ci réew mi Sénégal ñoo ko bokk Sénégal réewum jàmm Sénégal du réewum fitna bus yu ñu doon taal fitna yu ñu doon def yëpp amul benn njëriñ ci réew mi parce que nag président Macky Sall duggul bus soxna Marème fay Sall duggul bus seeni doom dugguñu bus kon bus yu ñu taal kan lañ koy taalal askan bi lañ koy taalal mm-hmm. le sénégalais lambda bu war a xëy dugub bi subatel dem liggéeyi lañ koy taalal nañu yéenante jàmm gis nga àdduna lépp waxtaan la mm-hmm. lañuy diisoo waxtaanee réew mi topp te nangu aussi dogalu suñu borom mooy ki fi yàlla teg ba le 2 avril mm-hmm. ñu ànd di liggéey ak moom incha allah keneen ku yàlla indi ëllëg ak sibir ñu xam ni kii la yàlla dénk ëllëg ak sibir Sénégal. loolu aussi ñu nangul ko ko. ok donc justement avant ñuy ñu ngi si jeexantal émission bi avant ñuy tëj donc bëggoon naa aussi nga ñëwaat tuuti par rapport ak seen candidat. Amadou Ba donc euh, le président Macky Sall moom la choisir gis nañ ci aussi ay dissidents dont Aly Ngouille Ndiaye dont kii Mame Boye Diao ñeneen donc ñi nga xam ne ils sont pas d'accord ba dem nañu présenter wu ñoom seen seen côté donc yooyu aussi boobu ba léegi dégguñu nga yéey ci yàbbi ci donc lan nga xalaat ci il a de cela neuf mois j'ai dit au président Macky Sall quand il m'a posé la question sur son choix. Mm. par rapport à sa candidature. ma ne ko et je répète textuellement mes propos monsieur le président de la république quel que soit le choix que vous aurez à faire je serai à vos côtés je pense que le message a été très clair ñu delluwaat en conférence des leaders j'ai pris la parole publiquement parce que xam nga loo leen waxtaan ci biir néeg te fësaloo ko ci biti loolu la ñuy wax ci alxuraan al naafixuna d'ailleurs man buggumay di wax yenn ci mbooloo waaye lu meloon noonu bës boobu il fallait que je prenne la parole ma répété waat président de la république ne ko baat bu ñuy woowee altaabaat ci arab mooy la constance moom laay ñaan yàlla di ànd moom ba aljada li ma lié ak le président de la république c'est au-delà de la politique cofeel gi ma am ci président de la république c'est au-delà et ça dépasse de très loin la politique sénégalaise te balaa ñu ci xam dara mooy su élection yi jàllee le 2 avril na muy continuer c'est mon mentor moom laa xam moom laa gëm waaye nag dinaa la ci yokkal lenn. ndaw mën nga nekk sa kër baay nekk ak say doomu baay ñu lay siis nga génn taxaw wane sa bopp ngir baay ràññee la. waaye nag soo demee ba gis say morom jóg ne dañuy song sa baay nga delluwaat sa kër baay looloo tax ma créé suma partie looloo tax ma créer suma coalition yàlla dimbale ma en tout humilité j'ai cinq maires ci réew bi j'ai cinq mille trois cent soixante-treize élus et je contrôle un département ma koy sante yàlla loolu mooy ma petite contribution beneen bi it mooy képp koo xam ni candidat nga nga amoon cofeel ci président am nga lu la metti man personnellement je prendrai mon bâton de pèlerin j'irai les voir ngir ñoom ñëpp ñu dellu si waat ci kër gi ndaxte parenage bi yombul de man de jàll naa ko législative bokk ci huit yi waaye li ma la mën a wax mooy parrainage bi yombul de ok donc votre euh, mot di di sant yàlla di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal président Macky Sall gudd fan ak wér yaram di ko ñaanal son gouvernement di ko ñaanal njabootam di ko ñaanal Sénégal yëpp di wëy nag di ñaan aussi ñaanal xalif généraux yi ñoom ñuy wëy di ñaan jàmm ci réew mi yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ko mboolee mi jullit ci daraja yonent yàlla Muhammad di ko ñaanal samay militant di ko ñaanal it même su dee ñaar wala ñetti taalibe yi am ci réew mi di leen ko ñaanal yàlla may leen ko ci dara yonent yàlla Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam jaajëfal ñu fàttali la tey suñu gan Mouhamed Diallo woon mooy muy ministre conseiller auprès président Macky Sall membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar nekk aussi président de la coalition Natangué Askan monsieur Diallo ñu ngi lay jaajëfal bu baax ngeen jëf merci